tey jii ci ngoon si yàlla def na ñëw nañu fii ci euh, commune bu Darou Salam pour lancer lu nga xam ni dund gi nga xam ni président Macky Sall moo ko joxe di ko lancer fii nag pour toute la région de Diourbel mu nekk choix bu am solo choix boo xam ni gouverneur lañ ci waxtaanal mu digal digal digal nit ci ñëw fi di wax ni. Diourbel région de Diourbel dafa nekk ci ñetti région yi gën a mag yoo xam ni ñoo ëpp lu ñuy jot dund gi rawatina nag euh, la commune de Touba commune Touba mooy ëpp ci Sénégal ci commune bi nga xam ni doy jot wàllu dund gi commune Touba moo ci ëpp plus de trente sept mille ménages dont lu ci ëpp maanaam ci urine bi la jóge mais loolu lu ko lu tax mu ma koy wax parce que xam naa ni stabilisation urine bi dafa métti parce que ku ci nekk. nga xool ko ndax fii la dëkk ndax amul ay doublon lu ñuy doublon mooy ay ñaar ñett juróom fukk yi nekk ci biir benn kër wala ñu bind sa tur ñett yoon ñaar yoon et cetera ñu saytu ko benn par benn ba raxas ko tame ko ba mu set wecc loolu bu ñu demee ba am résultat bi dañ koy gërëmee ñu ko ñu ñu ci taxawoon te damay wax ni les élus ñoo xam ni députés yi la wala au conseil des collectivités territoriales wala euh, les conseils économie sociale environnemental laxasu si ànd ak les maires ànd ak les délégués de quartier ànd ak les chefs de village xool liste bi ni fii tey fii kenn du fi bindu ñaari yoon wala ñetti yoon fii du ñu nangu ay transfert de non nekkoon dëkk bële dëkkoo fi wala dëkk fële ca ndar ñu bind la loolu ñu bañ ko bu joxe leen résultat bu am solo lool nag dama leen koy santé bu baax si taxawaay boobu parce que lii mooy liggéey boo xam ne mooy liggéey bi jox leen confiance jox ay termes de référence gouverneur di leen nii lañ koy jaaralee ku ci nekk jox xar sa sa tànk tugay doxal ko noo ko war a doxee ba am résultat bi ñoon da leen koy sant bu baax te kenn joxuñu ci kenn ñadrëm ku si nekk moo doon demal boppam di jël ñaqam di jël alalam di ci def loolu rek pour intérêt population parce que intérêt population moo ñu tax a jóg intérêt population moo tax a jóg le président de la république parce que lii population bi moo ko moom boo jëlee dund bu toll nii bu mosul am ci àdduna bi lu ma leer mooy bu ñoon seet ci àdduna bi wax naa ko keroog amul dëkk bu joxee lu toll nii non seulement ci dimbal waaye ci volume maanaam ci lu mu eggee ci askan bi amul en tout cas man xamuma ko donc bu ñu amee lu mel nii ni ñuy jóg volontaire u fexe ba tànneef bi jaar yoon teg fu mu war a tegu te coow amu ci loolu nañ leen ko sant bu baax a baax amul benn maire boo xam ne dafa man waa man politicien la wala man sama parti lay waxal amul kenn ku ci toog waxal parti amul kenn ku ci toog waxal formation politique lii dafa ni man askan bee ko moom citoyen bi moo ko moom président moo ko jël jox ko citoyen bi donc nañ ko jox nuñ ko war a jox donc nañ ko tànnee nuñ ko war a tànnee teg ko ci yoon mu yegg fu mu war a yegg loolu nag dañ koy remercier ñi nga xam ni vraiment am nañu taxawaay responsable ba nga xam ni loolu tax na ba ñu am résultat bi ñu am di koy gërëm bu baax di leen sant di remercier l' ensemble maire maires xam ñu impliqué wu mais aussi ak l' administration territoriale parce que bu fi administration territoriale nekkuloo ànd ak les force de sécurité et de défense ca kaw ba ci suuf résultat bi duñ am parce que seen liggéey la ñoom ñoom la ñu jox mandat gouverneur préfet su ñoom lañ sous préfet ñoom la ñu jox mandat ni leen bu fekkee liste bi jaarul yoon corriger leen ko d'office bu amee doublon corriger leen ko d'office ñu def ko jaar ko ci jaar mu jaar ci yoon tegu ci yoon donc loolu dañ leen koy santé bu baax a baax xam ni bu intérêt intérêt Sénégal taxawee ku ci nekk ci ñun da ngay bàyyi sa intérêt bopp dem intérêt bu nga xam ni ñëpp ñoo ko ànd ñoo ci ànd nekk benn et loolu encore une fois dañ ci remercier bu baax a baax toutes les personnes yi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci mbir mi di wax ni nag euh, dund gi lu ci bëri yegsi na ceeb bi lu ceeb bi yaakaar naa ni pratiquement mën na lu ci des fileek ñaari fan ñetti fan dana egsi fu mu egsi gouverneurs yi préfet yi commencé koy tas ci communes yi bu la neexee sax tey mën nañoo commencé tas ceeb bi parce que état bi lépp lu doon ci ay moyens financiers génneen na ko jox ko ñu mu ko war a jox pour que ñu liggéey tey jii bu la neexee ñu commencé ko tas tas ko ci écoles yi tas ko ci communes yi les nombre de points de distribution ñoom ñoo xool ñaata la ñu taf ko ci tas ko ci de telle sorte que askan bi commencé jot lii nga xam ni moom la leen président jagleel.